moo nangoo liggéey nag mooy boromub jom alaaji Demba Ka sama baay bilaay Sénégal bu ñu amoon juróom-ñaar yi mel ni yow Sénégal bu ñu amoon juróom-ñaari Demba Ka réew mi jóge fii yëpp kon Sénégal émergence kenn dootu ko wax réew mi dem na yoonam bu yàgg yaa bari jom sama baay ji waaye barki Serigne Touba Mbacke xamoon nga ne boo wootee lu nu mel ah sa taabu góor bi dina la wuy si président Demba Ka xamoon nga ne soo wootee lu nu mel sa góor bii dina si barki Serigne Bamba Tu vas bien Oui, ça va. Bien. Merci beaucoup, merci à vous. Bien. Dóomu nekk mën naa wax président. waaw loolu lu xew. dafa bëri de te ak lii looy wax nii. non loolu mun na nekk. Eh, ñaata la la fayeeku. non lii mun na nekk yow c'est impossible. ñaata nga ko fayeeku yow. 121 850. 121 mille deux. Eh, sérieux bi ba mu fees. barki moo xam ne man def naa 2 millions. ah bon waaw loolu doy na waar bi président nee na dafa jàppoon ne jënd na 2 millions ndax sérieux bi dañ koo duy ba mu fees nekkate yoo cent et quelques mille la ah. ah nen day dellu nen dellu ñëwal ñëwal. ñëwal ñëwal président neen day dellu neen day dellu lu mu jënd doyul président nee na day dellu lu mu jënd doyul dolli na tànnarma dolli na tànnarma dolli na meew dolli na suukar eh waaye groupe EDK groupe EDK yéen a ko yor groupe EDK yéen a ko yor vous êtes les meilleurs vous êtes les meilleurs groupe EDK vous êtes les meilleurs yéen a fi de yéen la fi yàlla teg te fi yàlla teg ak ki fi nit ñi teg bokkul yéen a mën yéen a ëpp doole groupe EDK président xool la neex nga jël fii sa barab la sa baay ko moom fii sa barab la sa baay ju baax ji Alaaji Demba Ka moo ko moom xoolal la neex nga jël ah yàpp xar bi président ngeen da nga jënd lépp laa ilaha illallah lii de mosuma ko dégg président Waly Ballago Seck nee na ko wekk lépp. nee na ko yàpp <laughs> nee na ko yàpp xar bi wekk lépp. président seeram tàng na de. la ilaha illallah. président seeram tàng na Thierno Gallaga sa waa gi du nit. barke Serigne Bamba Mbacke sa waa gi du nit. noonu la toll. wekk na xar yëpp. su supermarché de Carlo Prince bu bees bi nekk Almadina dugg wekk lépp. chaque jour xar la ñuy reere. ah waa kër ga de pale ba chaque jour xar la. Ah chaque jour xar la. la ilaha illallah. l'histoire tiendra président Waly ko sekk yaram bi daa tàng jër ñëw na ci supermarché low price bi nga xam ne alaaji Demba Ka baayam ju baax jee ko samp ñëw wekk xar yëpp fukki xar la fekk ci sérieux bi wekk na lépp laa ilaaha illallaah lépp nga wekk yaa bari doole yaa bari doole sama waa ji yaa bari doole barke Sëriñ Bamba kenn ma sa gis lii